man Muhammad mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki taalibe murid saalix yëpp ñu ngi fii nga xam ne mooy waañu Arraydatu ñu fas yéene fee màggal guddi nga xam ne mooy guddig laylatul xadar bi nga xamante ne bii dëgg yàlla sëriñ bi digal na ko mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi ak murid saalix yëpp ngir ñu mën koo def fépp foo xamante ni fa nga ne liggéey bi nag am solo lool maanaam ni ngeen ko gisee mooy soxna yi waajtaay yu nga xamante ni moom lañ war a def muy ndogu yeeg xëdd yeeg lépp loo xamante ni jëm na ci guddi gi nga xam ne guddi gi danañ ko màggal ci xasida yi danañ ko màggal ci alxuraan waaye tamit danañ def ay berne yoo xam ne yu am solo la waa daairatu arraida daje fii nag ci nga xam fi nga xamante ni mooy Yoff Océan ngir fas yéene ko fee màggal kon dañuy xool ci soxna yi ñi nga xamante ni ñoo doon taxawu liggéey bi soxna su mel ne soxna maam jaara ñu jox ko kaddu mu sànn ci ay kaddu yu gàtt rek soxna jaara bismillah soxna jaara <laughs> mun da laaj euh, liggéey bi ni ngeen ci doxalee ak liggéey bi ngeen ci def ak euh, yan kii ngeen ci jànkonteel. ah euh, ginnaaw bi ñu yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi sant Serigne Touba bu baax ndax euh, lii yëpp daal moo ko waral ndax liggéey bi moom maanaam amul coono ndax liggéey Serigne Touba kenn du ci sonn. at rek ñaan yàlla wax dëgg yàlla yëfi moom mat na. def ngeen ci seen doole def ci seen kàttan def lu ngeen am ak lu ngeen amul ba lépp dara manqué wul ñun soxna yi bu ñu toogee ci waañ bi bay berne rek ba kontaan ci rek yéen jëwriñ yi yéen a def lépp ndax bu fekkoon ñëw nañ dara mu manqué rek duñ mën a dem wax dëgg yàlla laylatul xadar bi ñoo ngi koy ñaan ñu ñaan yàlla ñu fekkee ko ay ati at bu déwén dàq bu ren bi wax dëgg yàlla ak képp ku def sa ñaq tamit yàlla na la Sëriñ Tuubaa Mbàkke fayal boppam yàlla booy la ci milliardaire Seexul Xadim yi la ñuy ñaan yàlla wax dëgg yàlla moom daal kontaan nañ daal kontaan nañ liñ ci liggéey tamit ñuy ñaan yàlla may ñu kàttan ba bu ëllëgee ñu gën ko ci def gën cee def tamit lu ko ëpp itam kontaan nañ torop nag macha allah kontaan nañ dara manqué wul wax dëgg yàlla dara manqué wul kontaan nañ torop. jërëjëf kon mbokki taalibe yi noonu ngeen ko déggee soxna jaara wàcce ci ay kaddu xam te ni bokk na ci soxna yi taxawu liggéey bi ci waañ wi waaye soxna si nekk suñu wet di koo xam ne dëgg yàlla waa raay de lépp luñ xewle rek moo xam Touba la moo xam euh, Dakar la dana ci def yitteem ba mat sëkk moom it dañ koy jox kaddu mu sànni ci liggéey bi nan yan yitte lañ def rek ba mu agsi fii ba mu mel nii nga xamante ni bii gis nañ ko muy melukaan wu mucc ayib kon sax soxna Melina ñu ngi lay jox kaddu bi. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàcc waaye di kontaan lool lool lool ci bés bi ak di sant Serigne mi nga xam ne moo ñu dajale fii tey te boo xoolee lii rek xam ne tey ñun dara dara yittelu ju dul Cheikhul Khadim moo waral lii nii yëpp te di ñaan yàlla comme ni ko soxna Jaara waxee léegi rek ndax yéen yéen yéen ñu dooleel ba ñun ñu mën a def lii nii yëpp di ñaan yàlla bu niñ ko defee nii ren balaa déwén yàlla na yàlla ak Cheikhul Khadim yëf yi gën a gën a yokku ba kenn ku ne ci sa bopp di sa bopp ñaan daayira bi dem bañ koy dégg fu ne ci barki Cheikhul Khadim loolu daal lañ ciy ñaan te kontaan nañ loolu tamit waaw te ñu ngi sant bu baax a baax jërëjëf soxna Mélina kon euh, lii mooy li nga xam ne moom lañ leen loon ci waañ wi parce que yéeni egg ci yeneen secteurs yi nga xam ne mi ngi dox ñu ngi koy doxal kon ci kanam ak jàmm incha allah ya

muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu mu yem